dana dana un million nangam. Mhm. laaj visa Amérique jël jël de am bëgg bëgg bëgg visa Amérique ñu di ko ci laaj trois millions cinq cent te moom un million nangam jaaxle si mhm. ma bëgg yee ci moom ci lii muy wax waaye da yem ci moom ay moroom dégg li may wax ndax bu dee ñoom ñii moom maa leen mag te kon a mag gën laa xam addina tuuti kon googu wet waxuma ci baati nag wala wala li ma leen li ma leen féete yi wetuk sëñ bi taxoon ma wax waxuma ci wetu baati waxuma ci xam-xam maa ngi yéen képp a yem waaye dama leen a mag gën leen a xam addina yéen yee ci addina tuuti te da ko teg nag ci ndëgër laay lu wér nit doom complexe complexe xeet yu bari la complexe nag bokk nag ñàkk gëm sa bopp ñàkk xam sa bopp mooy gëm ne mënoo am dara lu dul da nga génn réew nit du xeeb boppam du xeebum réewam du xeeb xeeb ab daram du xeeb métier am du xeeb xam-xamam da ngay tàmbalee ci benn bakkan nga am fukk am fukk door am téeméer am téeméer door am junni dama la ci nettali lu gàtt loo xam ne yéen ñëpp mën ngeen koy jàng un mille un million deux cent yi nga am boo demee jënd koy ganaar di ko jaayee pour supply wala nga dem jënd mat di ko jaayee te bañ a xool ku la ree bañ a faale kenn wala nga jënd sa kër yi di ko jaayee ñetti at laa la may mu tofal loo xam ne doo soxlaatee dem bitim réew waaye boo nee damaa bëgg ñetti million naa lu ma teg ci un million bi dem yóbbu wuti ci visa mhm. visa am ñëpp ci yem da dem isin dong ñu may la nga am chance ñu may la may ñu la ñu tampane la mu jeex kala koy lijjanti li dalay wutali kayit dong waaye mënta forcé consul ba ko may mhm. kon li am ko su néew tam leew la dugal ko ci fooy liggéeyee muy tonaw mhm. nga ko yàq waaye bul gëm ne bala nga am dara rek dem Amérique nit ñaa ngi fii juddoo fi di fi liggéeyee am jom tekki fi ba di fi jëriñ ñeneen mhm. defal sa xel ci lool yi dama lay jox nak benn misal bu kall bo xam ne sëñ Abdou Borom dër bi laa koy misaal ah. lii nga def rek da am ko ko def ñew ci mom mhm. ne ko dama amul lan luma dundé ci kër ga may ma bëgg nga dimbali ma ci dépasse sëñ Abdou seet la ma war a dépense jox ko ko ba noppi ne ko bu subaa nga ñëw mais mhm. mu ko dafa am lu ma la bëggoon a liggéey loo de ndax da ko man mu ko waaw Mbacke ne ko dama damaa bëggoon nga dem jënd li ay ganaar te yoral ma ko. Mhm. dal ko njëgu ñaari ganaar. dalil ko ca dara ne ko da ci wutub dund li leen jox. waaw ñu dem jënd ñaari ganaar yi jàpp ne day liggéeyal Sëñ Tuubaa moom sonn ci lool itam jëpp di yar ganaar yi. Mhm. sëñ bi fàtte mel na ko fàtte ba mat at mu woo ko mu ñëw mën a joxuma la woon dara ne la nga yaral ma ay ganaar mu ne ko ah kay mbàkke mu ne ko ana ñoom mu ne ko fii ña nga fa bari lool ba jaaxal ma amatuma dem mu jaay lépp indi dem jaay lépp ko dama jëlal ma ci béyu góor ak béyu jigéen mu dem jënd ko ñëw mu ne ko demal yaral ma mu dem yar ko mu may ko at mat moo ko mu ñëw mu ne ko dénk ma noonu ay béy mu ne ah kay Mbàkke waaye bari nañ ba jaaxal ma de. mënatuma mhm. leen a yor sax donc dama jaay leen ñoom ñëpp seen jël ma si ñaari xar yu jigéen ak ñaari xar yu góor. jël ma dama yaral ma leen. daal koy may ñaari at. Mhm. waaye jafe na fàtte na ko. Mhm. ana xar ya ma dénk ko mu ne ko ñaa nga dama jël ma ci ay nag. wàcc ñu ne ñaar nañu jigéen ñaar nañu góor demal yoral ma leen mu yor leen sëñ Abdou may ko ñetti at hmm. muy gétt dul jeex comme mu ne ànd naa ko mën a ko ñàkk suñ mu mën a ko bari lool yoon waa ko lépp lu mën a ko dama la yoon liggéey rek <laughs> lu ganaar laa la joxoon mën nga wax mu doone nag mën nga mën a ko mu ngoog dañuy tàmbalee ci lu tuuti jëm kaw hmm. sa bañ a yàq hmm. boo demee koo gisit woon ko yoon bii da liggéey te bañ a yàq rek bu yàggee nga am kon ganaar la tàmbalee teg ci bëy teg ci xar mu ami nag sa un million bii boo ko def ci wiis ak kenn demal seet li ñëpp yi liggéey nga di ko liggéey te bañ a yàq lu la jural bu ëllëgee nga jàll ca kanam te bañ a yàq na bul xool beneen étage yi del xool nga tane un million bii nga am ba war a wuti visa am nañu mënta am téeméeri dërëm kon del xool ki nga tane te bul xool ña la tane bul yàkkamti demal liggéey te bàyyi visa nangu li neel caw def li mu la gone yëpp tolloog yow tolloog jamono nañ jëf kenn ku ne na faaw ma dem bitim réew defe ne boo dem bitim réew doo am dara mm-hmm. nañ liggéey fii saqali réew nii mm-hmm. loolu mooy ndamul réew mm-hmm. dégg nga